salaamaaleykum mbokk internet yu Sénégal TV amati nañ bëgg dara leen benn yoon suñu émission Islam et Jeunesse tey nag ñu fas yéene waxtaanee thème bu ama ama am solo mais balaa loolu damay bàyyi sama chroniqueuse bi mu nuyoo balaa dara ñu doog a dugg si waxtaan bi soxna Fatou Sall nuyu naa la. waaw asalaamaaleykum Souleymane. Mhm. am mbégte di bokk ki nga xamante ni moom nañu bokk war a bokkal waxtaan bi ndax mhm. yàgg nañu bokk palaatoo mhm. man ak moom xamee nañu daal damay kontaan loolu bokk ak moom plateau di nuyuwaale mbokk internet yëpp. waaw jërëjëf son xasal bu ngeen gisee suñu invité bi tey di Ousmane mu nekk ku am am am solo te ndax tey thème bi ñuy waxtaanee moo ko laaj te ñu fas yéene waxtaanee thème bu am am solo muy mariage précoce mais balaa dara damay bàyyi Ousmane mu nuyoo ñu doog wax si waxtaan bi sëñ Ousmane nuyu naa la. waaw euh, Souleymane maa ngi lay fay euh, di fay soxna Fassal comme ni ma ko waxee effectivement euh, min nañu di bokk plateau di nuy mm-hmm. aussi mbokk internet yi di kontaanaat aussi si confiance bi ngeen am ci man ba tànn ma si seen ay invité jërëjëf. waaw jërëjëf mbokk yi seetaan ñu leen wax ne nag seen émission ah du suñu émission ñun Islam Islam et jeunesse mbokk suñu surtout jeunesse bi yéen moom yéen moom émission bi mu nekk seen émission ñun dinañ dinañu xaar nag si façon bu nekk nag dinañ indi leen façon waxtaan bu nekk soxna Fassal balaa dara man dama lay bàyyi nga dugal sa euh, sa sa laaj bu njëkk laaj ko suñu suñu gan gi nga xamante ne moom la fi am tey. waaw li may jëkkee rek mooy ana lan la jàpp ne mooy mariage précoce. Mhm. waaw euh, d'abord euh, comme ni ma ko waxee ci sama njëlbeenu euh, ubbite wax ji mhm. lépp lu nga xamante ne nii rek maa ngi ko fi wax mhm. may ñaan ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo may déglu mhm. ñu xam ne benn jaam la boo xamante ne nii làmmiñam fecceekuwul ci wàllu wax waaye nag comme dañu ma wóolu rek foog ma jéem donc déjà rek baat bi dafa am fu mu lu muy wane mariage précoce yaa ngi ñuul kuk maa ngi ñuul kuk kii mu ngi ñuul kuk mu dema làkki tubaab mhm. lan mooy mariage précoce d'abord mhm. donc mais bu ñu ko tënkee rek bu ñu ko xoolee càmbaraat dafa mel ni tubaab yi ñoo créé baat boobu noonu mhm. andi ñu ko donc mu mel ni que euh, mariage mooy takk takk précoce mooy lu loo xamante ne nii daal lu lu kii la daal voilà lu teel waaw loo xamante ne daal dafa teel daal xam takk boo xamante ne nii takk gu teel la waaw dafa mel ni affaire tubaab la daal. affaire tubaab la moom laa si xaw a sentir sax waaw. Mhm. parce que waxuñu ko si olof daal moom ma xaw a jaaxal. waaw kon mhm. jàpp nga ne affaire tubaab la. Mhm. ndax diine islam nangu na xale bi moom di teel sëy. ndax bañ na ko wala déet. waaw xam nga euh, soxna Fasal ci euh, li nga xamante ne nii euh, lu kenn mënut a weddi mooy. teel a sëy moo gën teel a joxe sa bopp. Mm-hmm. si beneen anam bu dul anamu sëy mm-hmm. donc nag lan la ñuy wax teel a sëy mm-hmm. ba ban instant la ñuy jàpp ne loolu teel a sëy la loolu mooy question bi quoi mais quant à teel teel teel a sëy moom am naa yaqin ne moo gën teel a joxe sa bopp koo xamante ne du sa borom kër gannaaw ba sëy la ñuy wax teel a sëy moo gën a joxe sa bopp keneen ko nga xamante ne sa gën a du kilifa son fatsal bu ñu ko déggee dafa mel ni moom dafay dugg si côté njaaloo Mhm. te njaalo bu ñu koy waxee maanaam sa yàq koo xamante ne du sa borom kër wala koo xamante ne du sa soxna nekkul mhm. sa kilifa nekkul sa mbokk la mhm. loolu bëgg wax foofu soxna Fatou da ngay bàyyi nga xuus sa beneen laaj waaw dama ko bëgg laaj ni que ana lan la constitution bi gis comme maanaam bi mooy lan la gis ba tax moom mu établir mariage précoce donc euh, mu mel ni ko rek euh, ñun lu may am habitude du koy wax euh, dafay jaadu ñun ñu xam fi ñu bokk ak mhm. li ñu doon mhm. soit dañuy bokk suñu dañuy boole suñu bopp si beneen wàll bi mhm. wala ñu boolee suñu bopp si wàll bi nga xamante ne moom lañ jàpp ne si lañ bokk ne ay jullit lañu donc bu fekkente ne nii ñun dañoo gëm ne ay jullit lañu waruñu attewoo si beneen charia euh, wala waruñu atte si beneen règlement bu dul li nga xamante ne ni mooy diim diiney l'islam donc su fekkente ne nii foofu la ñuy attewoo waruñu wax benn yoon di di di wax leneen lu dul ci lislaam mhm. voilà donc si gàttal daal mhm. euh, lépp lu nga xamante ne ni lislaam daganal na ko mhm. man su leneen ñëwee lu dul lislaam moom du ma sax wax moom jërëjëf sëñ Ousmane si yoo leeral ñu leen fàttali ba tey yéen a ngi seen émission Salam Jeunesse da ngeen bu baax a baax soxna Fatou li nga xamante ne moom la wax mu mel ni kon teel a sëy islam moo ko digle su ma ko déggee bu baax mu mel ni teel a sëy islam moo ko digle soxna Fatou waaw fi may ñëwaat mooy dama ko bëgg a laaj. Mhm. ak moom laajit moog internet yi nga ñoo ñuy seetaan. Mhm. ndax moom miy toog mhm. ndax moog ku internet bu góor bi wala bu jigéen bi. ndax moom poussé wul xale bi. ci mu def lu nga xamante ni moo waral tax loi bi gis ni. dafa war établir mariage précoce ndax xale dañuy gis benn xale mu yaru lool toog ci coin mais bu dee jigéen la benn mag bu góor mu ngi ñëw di ko ko influencé naan kaa mañ takk la ma takk la ma takk la ba xale bi tax xëy suba teg ñàngam mhm. si suuf ni man damay sëy mhm. est-ce bokkoo ci wala ñi may seetaan bokkuñu ci <laughs> laaj <laughs> donc euh, moom mu ngi may tooñ quoi mhm. mais am na ku may bëgganteel fii mu nekk nii mu ngi am fukki at ak juróom benn donc euh, su fekkente ne ni yàggu dara dinaa ko jël parce que yaayam jullit la papam jullit la te euh, ay mbokkam aussi ay julli lañu te mhm. duñu ñoom bañuñu loolu quoi te sama diina aussi bañu loolu quant mhm. nag su fekkente ne ñu bëgg suñu xel yi mhm. gëmloo ñu leneen wala gëmloo ñu yeneen yoo xamante ne dañ koy jël oh, kii ko ambale euh, euh, ko ko utal ko habillage utal ko ay tur lu si demee ne ay mariage précoce yooyu loolu yëpp ay xeex la yoo xamante ne ni noonu yi dañu ko teg ngir xeex jullitu yàlla yi nga xamante ne ni dañoo bëgg a donc euh, bu ñu la bëggee di si loolu léegi gars yi dañu leen

ay xeeti affaire yoo xamante ne nii doomu aadama ju nit si boppam. yi xel yenuwul xel yelloowul ne loolu war na mun a nekk ñu ne yow léegi il faut nga tegoo affaire yu demee noonu. waaw nga baal ma foofu noonu da nga ne xel yenoowu ko est-ce que yow tamit jàppoo ne xale boobu am 16 ans nga bëgg dugg ci moom. ndax tey jii mënoo woon seet koo bokkal génération gënul tey jii nga jël xale bu ndaw boobu naka ànd ak moom. te nga xam li nekk ci sëy. ndax du sa première fois. waaw man ma bëgg a defar sama yaram. ah. bëgg koo xamante ne daf may toppatoo di ma di ma noddanti. c'est-à-dire xale rek ko xale yee ko man mën. xale rek ko mën toppatoo mënul defal sa yaram. Ah, non non loolu yow xam nga ko sax xam nga yow dafa am. nit ñi boo amee benn age bi mhm. dafa am looy tal leneen looy tal lu dul toppatoo sa sa borom kër am na mhm. leneen luy nekk priorité si Ousmane dogguma la mais yow lan nga déggee si toppatoo sa borom kër lan nga si déggee waaw genre toppatoo euh, voilà très bien xam nga tey ba ngay sàmba nga si taamu xale moo tax ma wax voilà mhm. xam nga xam nga Souleymane yaa ngi dugaat si beneen point boo xamante ne nii euh, damay waxaat ak noon yi Mm-hmm. noonu l'islam yi mm-hmm. parce que tey bu ñu demoon ba ñu ne ne femme au foyer ñu ne noonu égalité ñu jël mm-hmm. femme teg ko jël ko teg ko di daal toujours ñoom ñu ngi jël seeni affaire rek di ko defar pour ñu di ñu ñoneñtal di ñu xeexatal quoi léegi jigéen yi nga xamante ne ni ñoom ñoo waroon a nekk si foyer yi léegi dañ leen gëm égalité parité léegi femme yooyu comme nekkatuñu si kër yi dootu ñu mën a toppatoo borom kër borom kër a toppatoo ko sa waay mooy euh, nekk si wetam saa yu boo geesoo gis